dégguma dara de na asamaan riir na aras yëngatu na kursiw yëngatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah jëmm ju tedd ji Cheikh Abdoulaye Dièye yal yàlla yokk leeram te doomam bu baax yi Cheikh Bamba Dièye nekk fii dama ko bëggoon a leb slogan bu am solo boobu te bokk na ci li gën a ñoŋal jataay bi allahu wahidun allahu wahidun yal yàlla barkeel jataay bi barkeel na ko ba noppi ndax ñu yëg ko ak ñu ñàkk ko yëg malaaka yërmande yi ñu ku ci nekk ci ñun ñu ngi lay bindal yiw ndax da ngeen dog seeni soxla ngir mën a dëggal xaala laahu yal na leen yàlla fay naaj wii tiim leen yal na ko yàlla soppi ngelaw ci àjjana firdawsi euh, kooku ngeen tudde léegi <laughs> waa liste bi naa ko génne naa ko génne danaa ko jox amako tan ki ngeen tudde léegi muy suñu borom subhanahu wa moom moo njëkk a criminaliser ngóor jigéen suñu borom criminaliser na ngóor jigéen ci suratul ankabut criminaliser na ko ci suratul uhud criminaliser na ko ci suratul naml criminaliser na ko ci suratul anbiya yi suñu mbokk waa jàngu bi ci seen téere bi ñuy wax Lévitique criminaliser na ko chapitre 18 verset 22 téere yoon ci yàlla wax na ni coucher avec un homme comme on couche avec une femme est abomination waaye yow criminaliser nga fii vol à main armée coow amul ba ñuy criminaliser incendie volontaire assemblée nationale la woon coow amul ba ñuy criminaliser trafic de drogue assemblée la coow amul ba ñuy criminaliser viol coow amul waaye ñu ne dañuy criminaliser góor jigéen ñoom ñëpp ñu jox firi seen laaf yi jóg di saaga ak di xaste kon am na lu xew am na lu xew am na lu xew alors boo jógee nag nga nekk njiitum réew nga ne tànk maa ngi fi kenn du ko daganal ba pare fopp fukki association góor jigéen ak juróom benn jox leen ay lijaasa ay ay récépissé kon daganal nga ko ba noppi naka ngay mën a wax du nga ko daganal ca sa ay député nekk ay membre PGA Parliamentarian Global Action muy kuréel bu Nations Unies samp lan mooy seen mission protéger promouvoir te ñoom ñoo ko waxee noonu les lesbiennes les gays les bisexuels les transsexuels Sénégal député Sénégal yaa nga ca biir lan la fa Sénégal diw kon légaliser nga légaliser nga ko ba noppi buñ ñu nax Euh, léegi nag suñu mbokk waa presse bi ñu leen di gërëm ci teewaay bu takku di ngeen teew tey combat bi bu leen defee ne combat ànd sàmm jikko rek la déedéet ndax xam nga ñiy protéger góor jigéen ñi ci yan pexe la ñu nekk te yéen xam ngeen ci dara mooy li tubaab di wax un renversement des rôles maanaam fexe ba ñiy xeex góor jigéen. ñoom ñu mujjee criminaliser képp kuy jóg ne yaa ngi leen di xeex yéen presse bi xam ngeen ci dara article 18 code de la presse nee na journaliste bu ñu fi jàppati ngay wax ci góor jigéen naka suñu noonu yoon dana dal sa kaw kon agenda baa ngi seen kaw euh, ma bëggoon wax ñaari baal ci suñu coordonnateur Ababacar Mbour Ababacar Mbour ayadaha laahu wa amrahu wa nasara sàkkuwul benn ndombal tànk Ababacar Mbuub ñun ñoo ko doyloo ci xam-xamam ñun ñoo ko doyloo ci tegginam ci yaram ci patriotisme ak ci fitam jiital ko mu coordonné 145 organisations de ànd sàmm ji koy dama bëgg ngeen tàcc ko spécialement bu leen ko tàccu yem si bu leen ko dal yéen si na ngeen ko ñaanal gis ngeen keroog def na ci page Facebook am dafa am fu mu gaare woon otoom ci mission bañ ko sant moo ko waxal boppam te def ci indi ay firnde mu ñëw di démarrer waat oto bi dawagul sax 100 mètres oto bi yëngatu ñu gaare fekk deux roues avant yi ñu dévissé écrou yi ñab ñabal ko benn roue arrière bi ñu dévissé écrou bi ñab ñabal ko li suturaal Ababacar Mboup bu ko fekkoon muy daw 100 à l'heure dañuy jékki-jékki ne oto ba këpp na musiba am na comme ni oto Abdou Latif Gueye këppoo musiba am waaye leeragul Ababacar kon ñaanal leen ko yàlla sàmmal ñu ko yàlla ko yàlla aaral Ababacar Ngom dama bëgg ngeen ne suñu borom yàlla na nga ñu aaral Ababacar Ngom euh, léegi nag dafa am lu ma Ababacar Ngom déy Ababacar nga baal ma ma violé euh, secret bi nga ma wax du secret sax ndax waxtaane nañ ko réunion ndekete yoo proposition de loi boo leen gisee ñu galgal ko dès dès dès la porte d'entrée de l'Assemblée nationale xam ngeen bi mu jógee bureau ba dafa waroon dem commission des lois bu jógee commission des lois dem plénière ndekete ñoom seen tiitaanga yëpp moo doon mu bañ a dem plénière xam nga lu tax dafa am ay député Benno Bokk Yaakaar yu bari yu on Babacar Mbow ci ci ci ci ne ko ñun mën na ko ñëw fes waaye bu proposition bi ñëwee plénière rek su boobaa ngeen xam ne dëgg-dëggal ci la ñu lal seen complot ne il faut tout faire pour que proposition de loi bi dès le bureau ñu bloqué ko loolu mooy réalité bi nañ ko seen c'est l'occasion nag député yi nga xam ne fas nañu seen fit ànd ak ñun ci xeex yi tuddaguñu leen bi jataay bi commencé ba léegi dama si bëgg jukki quelques-uns na ngeen ñaanal Mamadou Lamine Diallo tekki Cheikh Bamba Dièye l'honorable député Moustapha Guirassi l'honorable député Mame Diarra Fam l'honorable député Seigne Mansour Sy Djamil ak député Macky Sall yi wan Macky Sall ginnaaw te ñëw muy euh, euh, euh, Cheikh Aliou Souaré ak Abdoulaye Wilane fàtte woon naa tamit Mamadou Diop Decroix honorable député Mamadou Diop Decroix kon nag ñooñu ñoo sigil sam ànd sàmm jikko yi ñoom ñoo porté projet de loi bi mais am na yeneen plus de 40 dañ doon xaar projet bi ñëw plénière moo tax gars yi def complot daal di ko galgal léegi nag maa ngi jeexal fi imam Alioune Badara daaneel fulla mooy jaay daxaar fulla mooy jaay daxaar de ko ci bar lii ngeen daj nii ci naaj warul nax saay ndax pencu ndaw réew mi mooy place ba nga xam ne fa la ñuy nasee ak di nocceel waaye député ya fa toog amul benn député bu mën a fëgg dënnam ne président de la république moo ma nommé par amul député yi yéen a leen fal jox leen ay salaire yu baax jox leen oto comme que fal ngeen leen te li ngeen sant nangu ñu ko def boo amee sa jànq sa mbindaan foo mu bañ nooy def wala législative yi accident dañuy wax wax ji mu jeex lànk ñu ne duñ ko def na ngeen am ful la ñu day ni jàmbari góor yi toog ngeen tappaleen ñu dem assemblée criminaliser homosexualité par force asalaamaaleykum wa rahmatulah